man de dañ ma booleeg yow. ñu ne ma danga fi nekk. te am na lu la yàlla may. Hmm. waaw ma amoon yu may toppatoo di ko lijjanti. Hmm. ma ni naa ñëw daal nga fekkee mën nga ma ci jàppale nga defal ma ay. Ah! kooku kuna aha axatxafila axatxafila aha bisimilah di nga yëngu nga nga déglu toujours su nga amee nag di nga foofu di nga déglu cee nunku si dee cee cee dee cee cee nunku si dee cee aha aha bisimilah bisimilah waxali sa soxla xam naa bépp gis naa bépp di nga nag benn yoon ma ne dinaa jëflante gi yow parce que gis na lépp gis na lépp xamu na lépp aha directement dina ko defal moom it yow di nga mën a dara zaratan zarabatan ah, bindali sa soxla fii bi jëleli buku bi nga bund soxla lépp bi nga soxla moom nga bind fi ma man dinaa def yow gis naa lépp xam naa lépp 개눈 굿이 됐지? 너도 돌아와서 웃기나 대포 이 어디가 있지? 이거 아무런 ya nyambala hidi ye sapu de nyambala as hidi boy tamata ya nyambala bineli sa sokhula ninga kholu Kira sa sokhla nga amangi yo. Shikule shakule shenile yaraba asikusi disiki de boy tamanja ya yaraba sikule saakule seenile jalaba asiti siri boy tamanse anjala sangu simili sangu bi simili sangu bi fii la nga ba am kii nga amali kii mbubu mbubu waxul tibe mbubu nga mbubu amali mbubu a tibe tibe am na mbubu am na jëlali li tan li fale sari li fale ci fi jëlal dañuy dem foofu ak ma sàngalee foofu man dinaa dégg nga bopp ça fait un temps. C'est bon. Aha. Aha. Yo. Voilà. Voilà. Aha. Aha. Dawali. Ino ko sama ko ngoy sokle bla juro ko tigo ga yawo. O jikele ma woni mi o jikele ati suma ko ngoy ati suma ko ngoy ati kap ma ati sele ngoy fuba dina dem marché eh aha wa dinga dem marché dinga fuba ivu ambu dina yobu yofu i wa <laughs> xam nga même melu ñang yow dinga jëli place boobu i waaw aha ma ne gis na lépp xam na lépp kamara yow laa doon wër accident accident aha ma ne gis na lépp dina defari lépp xarit mi ngi ñëw waaye yow kii dëmm wala jinne la kii dëmm la wala jinne la ah, ah waa lu waa dangaa aay dangaa dof ah i jigiri ñaa jigu pona i jigiri ñaa jigu pona ah dinaa fi ah dangaa aay dangaa aay camarade Mangala buzu, mangala buzu. Awanga. Yow li nga premier contrat di nga signé foofu dix millions mani dina ami six millions déedéet lay jox am un li nga wax ma ne bëggul ma bëggul six si nga bëggu dégg jox six ah lépp dina baax. incha lépp dina baax. Kamara weccit yaa dof man yow la kani nga dof. da ay laa bëgg a wax. kani nga dof. <laughs> i jigéen ñaa jigéen bu naa. kani dina gis dina defar dina sali yow. da nga ay. nga puuji. dina wo lépp dina baax. incha allah dina jox yow saafara dina diw. yow laa doon suba bu nga xëy nga diw nga laale su yow laa doon wër. maa ngi accident ak mooy yow kii nit la kii dëmm la kii dëmm la jàpp quel est flan ton ton nagara bina musoo bi lon kolon fitiri dafay ton ton quel est flan ton ton nagara bina musoo bi lon kolon fitiri Saakulee. Njalaba. Siikulee. Saakulee. Njalaba. ay siidi siidi booy tam di monte yaa. Njalaba. Siikulee. Saakulee. Njalaba. ay siidi siidi booy tam monte yaa Njalaba. Njalaba. Saakulee. Njalaba. Siidilee. Njalaba. Njalaba. Njalaba. kii kii kii bu doon sunu dëkk ba du wax mama danaan nay booy nay booy bay booy yoo. xam nga ne loolu amatul dëkk ba wax. waaw yow lu tax sànq ba léegi ma lay woo sa portable bi jëluloo ma wax nga jox ko tubaab mu may làkk rek man nga xam ni crédit bi ma jëndoon dara jaru ci noonu la lépp jeex barki yàlla woo naa la barki ma tàpp téere maam yàlla woo naa la barki yàlla billaay wallaay wa woo naa la sa portable man sa portable la nga nii ma teg waaw ah. ba pare ba pare man fi mu toll nii damaa bëgg ñu Eh, bàyyi góor a. kii du ndaama. waaw waaw man na kay. yow da xam kii. Samb. waaw waaw xam naa ko kay. kii du kor. waaw man naa maa doon doxantu rek. Ah. yow kii Kumba ba ngoon. waaw ba ngoon waaw dem. waaw maa ngay dem ah. waa kër ga. ah ah garaawul. ah dama ah, kii. ah baa mi ngi góorgóorlu. bu baax sax. Kumba. mu ngi góorgóorlu da doxut kii sama xarit la samb la sa ginnaaw la ñëw kër ga sama jarbaat la jóge dëkk sa jarbaat lenk kii kumba kumbaa ngi moom lañ doon wax kumba kaw kaw naa turam ah, nag kumba rek bàyyi kaw kaw gi ah, kaw kaw nawet kër léegi nag nekk naa ah, waaye Samb Samb teg si Samb. naka def Malick kii doon guro. Ah. ma sama ŋàdda ngi. kii bu njëkk mag ñi daan nañ sama jigéen mu amoon solo lool nit daan na jaaxle dem ci jigéenam jigéen daan na jaaxle dem ci góoram noonu laa mel ak moom kon maanaam sotti la ak def. sama xarit la barki démb la ñëw kër ga ñu wax lu rëy nag ma ko say mbir ndax sañ naa jëf wëlbati la na faal jëf naa lii te boo ñëwee di ànd ak man ci jëf jooju dag ma waxoon dox naa ah. bu may seet wóor ah. ak doy ba tëb kii leneen a ma tax a jóg te nag euh, faal ne woon nga ma ci kër ku wéerul fenn day neexa ba ma hmm. te yéen ñaar da yem benn situation ndax dencoon na waaye jikko ndaw saako doyul mu wàcc ko tey it xam nga ma xam te dara ump ko ci ma bëggoon nag sàmb nga jàppale ma sama jigéen bii fi sabilillah bu bëtam xonk ba mu jooy ba mu mer te xam naa ne sax gaa paaka lu mu ñaw ñaw ñu daas ko waaye wax jooju mënoon naa ñàkk caw ah, waaw sàmb alaaj góor a yow maag yow du tey biimb dëgg la diggante nduf Ndengleer Ndeng Sirax Kabanduur mhm. Mbulax Tine mhm. ku la fa déggul dégg na. dëgg la amul ku nu fa am nañ fa la doxaan naa fa ku ne. ñeeng seex jooy nga wax sama jëkkër ji mu jëggaan ñeeng seex la jóge. Hmm? fa la dëkk sama ñaari jëkkër dañoo génn àddina. ni nga gisee nii sama sëy leen nag sëy bu rafet am ak ñoom doom yu mhm. doom yoo xam dañuy tekki bu mu gàjj fii. ci digg Thiès bi. mu ngi ak te nag ni ma gisee nii damay fayeeku trésor. di fa yokk IPRES. su ma demee le 5 fii fii le 10 ma dem. loolu laa yor. sëy nag rek ma ñor leneen ñoruma. Euh, ba ci kumbam kumba mi ma la jox. Ah. kumba yi lan ma doon fay muy salaire am ko ko jox. moom mii moo gën a wóor compte bancaire. Ah. maa yor lépp ñëwee daal kër kër ga sax moom damaa far bàyyi lépp lu yaashaat yépp ci loxo. dama dossier yépp a ci moom yépp a ci moom. dama di ndaanaan. Euh, moo raw Girino. faal ya yàlla faale. Ceera Faal Ngàcc Faal Lamp Faal Asan Faal Madina Faal eh, dee sax yàllaa koy indi mhm. loolu kenn du ci sikki jigéen mhm. Mhm. kañ la génn àdduna sama jëkkër war naa am ñetti at de ñaa kee ka njëkk sax kii ñaari at waaye kii ay ay déedéet benn at ak genn wàll lañu rawante lañu rawante ah. <laughs> te yàlla ne lay jëlee jàmm rek te yàlla da ngaa tebbi de. daa dugg rek moom daa di kii. Ah, yàlla la station la <laughs> d'accord dinaa fi dellu si waat dinaa ñëw ànd ak ah. mukk déedéet bu leen dem. lépp déglul ah. lépp dañ jar naa desal ba mu des li wax te gis nga. Hmm. kuy def lu baax da ciy gaaw balaa cat bi si dugg. Ah, dama bëgg a xam rek ndax nangu nga wala yow nangu nga lu ci am am. waaye ay dem ba ñëw man du ma lantinoor di dem ngay sotti may ñëw di sotti kii mukk na leer fii. xanaa sa loos bi day metti. ah loos bi. non yow laay déglu. mbëggeel nag ñu ne lay def ñetti. man de wax dëgg yàlla waaw Kumba Kaw Kaw sax bu ñëwoon servir leen boisson balaa ngeen dem. ëpp naa dem laa bëgg invité. yaa ak Alaaji ñu lekk di bi. alors ah, de des na si yow. moo raw gaynde ak si bi de. man de Alaaji ma la gisee. Mhm. sama bët na jàkk ci yow si la sama bët di dagg. waaw invitation boobu moom xam naa ne dina baax. <laughs> suba ci guddi dinaa la jël si ñu dem lekk ji. Ah. waaw fa la tontu di neex. mag nag mag bu bëggee def lu baax. Hmm. da koy gaawantu. maa ngi ah, yaa ngi ci bëgg nga sangu piscine. wax ju àgg dafa ko moom. kan ma piscine. di ngay sangu yooyu rek damay dundal. dinañ sangu ji piscine. <laughs> wax ju àgg dafa ko moom. ni ma xool seen bët rek. ci xaayaar ko dégg séeréer. ah ñu ngi dem. suba ah. dinañ la jël suñu dem. ah. sikki da cee am xam. déedéet dama koy xamal ni mbaa euh, melo mer hmm. yow man bu ma la gisee laa kontaan. kontaan naa. na merci yow it sa loxo laa la wax ñu xalaat. kuma naa de. xam nga da ngaa toofe doole. yàgg nañ ma ko wax nag. Ah? yàgg na yàgg naa oh, indi coow yàgg naa indi ci dëkk bi. Ah? yàgg naa eh, indi coow xeexloo na jigéen ñu ne. lu ne xeexloo naa leen. waaye kii moom defe naa ne mooy carré d'as gi. waaw fii laa yem. waaw daj dëpp gaa gi. fii laa yem waaw daj laa ko tudde kenn du ko yàlla ma ci yàlla defal tuttu la. fii lu nekk gi fi. ak ay yaxam laa la laaj. génn. kii. génn loo ma jox lu ay yaxam feneen loo bëgg ci moom dinaa ko ci def. yax yooyu nga wax moom laa lay def waay. amul biddaa amul biddaa. sa gën licence oh, du benn xam nga lan la maye loo moom. dégg nga baax baax ci sa alal maye maye loo moom surtout li nga maye sa dangereux yow nit nga maye de ah, ah xale dégg nga xale bi li mu wax lan la wax te yow léegi landatoo benn kot maa ngi la nii naan la lu mu wax naan la nañ ko reporté ba beneen yoon bu ñu demee ñu waxtaan nga joxe sama réponse xaar mel ni yow yaay bëgg waaw ah looy xaar ba suba déedéet déggoo li mu wax xanaa ah. damay fayeeku le cinq épinas le dix ma fayeeku euh, trésor man ka fan la may fayeeku la koy naa ko daanjël ndeysaan la jor job kuli jorjo pat fatim ñay sey alaaji salama samba yasin gis jamme ko falak ko du salak mbar gejak jogomay chom chomulango jalo jalo fat machubo ñaani baña duma ko àggale mënoo ko duma ko àggale waay wa daa diis octave koy alaaji nag yow da ngaa raté sa vocation maanaam yow waykat nga waroon a nekk xamoo yombul de def na lu ne kii gis nga nag am na lu xew de lu ma lay bëgg a nekk di yëg nga ni sa ndaw si daajal nañu bang du ñëw xam nga moom mooy grande balaa balaay génn. bu affaire bi du affaire grande dame du poudre affaire ba nobante rek la. du maquillé fii dama koo àbb. hôtel bii dama koo àbb Matar laa ko àbb. Matar man a ah, Matar borom kër gi. nag erreur nga. laa ko mag du xubbiku de. da nga waroon dem foo xam ne Matar du la leen boo xamee ne sa cuksul la xam ne sama cuksul ah. ndax Matar moom fii hôtel la ku nekk lay gis ta Matar fii hôtel bi dañoo téye seen làmmiñ de. du ñu nettali de hôtel bii. Ah. looloo tax mu baax dañoo am sutura Ah, bu baax. na dañoo am sutura de. na damaa yow bu ñu duggee ci ndox mi rek. Ah. nga génn. Ah. dem ñibbi tàggoo ñibbi da ngay am xel ndax ma dañ maa abal néeg. da fanaan fanaanu ma dañ maa abal néeg. <laughs> waaw abal nañ ma am néeg nag. bu ñu climatisé. am frigidaire ak lépp ci biin lal ñu nooy yoo xam ne. bu ñu weesoo si lii. nang ma wutal ab ab tunnel. da am xel nag. fanaan la dama ko bëgg a dugal cëm. xaw ma ko la cuubal de. makina maa ngi ñëw tey kii ndeysaan Fatou Fatim Ndiaye daf maa bëgg. dama Samba Yacine di jàmmee. kottu Samba ak Mbarke de Jogomaay. léegi nii bërëb baa ngi ma ne ko bërëb baa ngi. Diallo wuy Diallo wuy Diallo. Déjà. Diallo wuy Diallo wuy Diallo. Déjà. Déjà bërëb baa ngi nii. neexul dañ cee bokkul. billaahi lu jor jor sama xarit nga. parpati ñay sama xarit nga sama yasin di jàmme. kon de sama mbar gee jag jogo maay. jalo jalo maa ma jubbo. soyez les bienvenus. soyez les bienvenus. béy. résidence la Dior bii. ca kaw ca kanam rek. Euh, alaaj. Ah. ah. yow te ñu laa commandé dara boobu. ah léegi loolu danañ dem ci kaw. lépp a ngi ci kaw. débé ah. débé ji. Ah. dinañ la ko wayal après am na feneen fu ma lay yóbbu feek ci kanam tey sa journée la alaaji bërëb yu mel nii dafa baax ñëw di jot sa bopp ndax taraa ngay àdduna bët la beauté des yeux tubaab wax waaw ndax bërëb yu mel nii baax naa ñëw di làqatu di fi jot sa bopp di fi jaamu yàlla dégg nga mere naa la nag mere naa la mbir mi bu doon ay carte hmm. ma xam ne as bi ko teg Rachel damaa bëgg na nga nu ma sa man ngay wateel daa di nga ma gis da ngaa bëgg ma wan la saa bopp. loolu ma gis. alaaji lu ñu wax ci àdduna yi. jamono yi. bët ah. Ah. may dàq. alaaji xaar ma ci biti maa <laughs> baax na dama bëgg a fii dara fii ci kam kon maa ci biti di leen bi. nii rek la mel bëgg ñoo toog loolu xam naa ko de yóbbu la Arabie may boole ko li ma tëju ñàkk moom nga may booleel nga gis ñu. ah Alaaji. maa dénkul sa bopp. mais kii dafa dox mais wax naa leen li ma lay wax ba pare nga de kii rek ko ma yàq sama doy àddina ko teg ak ci bi laay ma taal Diouf mi ngi nii àjjanaa ngi nii bàyyi siis bi nga toog plongé ci kaw mu jeex tàkk